histoire bii nag soo ko bëggee gën a comprendre il faut que nga seetaan vidéo bii mooy commencement wu histoire bi si histoire Victor ak Sylvie dañuy arrière si bés bi nga xam ne Tariq génnoon na àdduna ñu dem si benn dëkk bu ñuy wax Autrui mu amoon benn soxna bu ñuy woowee Vanessa mu ànd ak doomam dem si kër magam bu tudd oto mu wax ko ne ko dama bëgg suma génnee àdduna nga yóbbul ma sama doom jii di Eric si dëkk Venu kër maamam te dama bëgg nga téye secret bii ñuy nëbb bu ko wax kenn ba nga xamee ni teg nañ ci benn semaine ak ñaari fan kii di Vanessa génn àdduna ba pare police def enquête am ne dafa xaru boobu Eric di doomam mi ngi am juróomi at xale bi amoon naqar lool di jooy suba ngoon ndaxte lu yàggul dara papaam génn na àdduna ba pare ñu teg ci ay deux semaines yooyu yaayam topp ci kii di Otto di magu Vanessa mu amoon lu ko metti lool ndaxte moom xamoon na ne raqam xaruwul ba nit ñu am doole lañ am daraja am pouvoir wante moom mënu ci woon dara le fait que mënu ci woon dara loolu metti woon ko lool bañ ci tegee ay ñetti fan yooyu kii di oto yóbbu Eric dëkk bu ñuy wax Venise avant mu koy yóbbu ci kër maamam mu yóbbu ko ci bàmmeel bu ñu suul papaam pour doom ji ñaanal ko doom di ji ñëw jàkkaarloog bàmmeel bi di jooy mu seen fa benn waay bu toog ci wetu bàmmeel bi mi ngi soloon ay yëre yu rafet teg ci bopp bi benn couronne waa ji di wax ak papaam di jooy naan papa ji lan moo tax nga jékki-jékki changé mel nii pourtant nit ku baax nga woon nga bokk ci ñu ma gën a bëgg ci àdduna lan moo xew ba nga bëggoon maa raylu naan ko mon frère lan moo tax nga trahir ma ba pare di jooy jooyu mettee metti muy jooy naan ko wante jégal naa la ñu toog ay 10 minutes yooyu benn limousine bu rafet gaare at ay 4 x yu ko wër si biir 4 x yooyu ay garde royal wàcc si ñu ñëw ba si waa ji doon jooy ne ko buur Victor am na ay gan yu lay seet si palais bi ba nga xamee ni buur bi dem na Eric ñëw ba si bàmmeelu papaam ñaanal ko mu pare ànd ak nijaay ji mu yóbbu ko ci kër maamam maamam yar ko dugal ko école ba nga xamee ni am na yenn at yi ñu yóbbu ko école police mu yeggale fa jàngam ci biir pale bi kii di buur Victor ak reine Sylvie amoon na ñaari doom benn bu jigéen ak benn bu góor ku góor ki nekkoon taaw ñu koy woowee Jacques ku jigéen ki Émilie kii di Jacques mi ngi amoon ñaar fukki fan ak ñett te pourtant li mu def ci lu baax ay maamaati maamam ba ci papaam defuñu sax xaaj bi moom lim daan nekk ci biir pale bi bëriwul da daan voyage ji di ay dëkk di leen juboole Victor di buuru dëkk bi nga xam ni moom moo ko jur moom sax dafa yéemu woon ci Jacques ba pare bés bu sàkk ay yeneen buur dañ daan indi ay cadeau or gu bëree bëri daan ko jox Victor naan ko sa dooma ko liggéey te daan nekk ci biir dëkk bi sol ay yéreem yu simple du ànd ak benn gàrd mu nekk di xool ñan ñoo am problème su ko gisee mu regle lépp daan xool tamit ñi ñàq ñi mu jàppale leen ba du ñeewati kenn kii di Jacques nekkoon nit ku simple wàccee boppam mën a wax mën a waxtaan fu mu daan taxaw di wax ñëpp dañ ko daan déglu su paree ñëpp jóg di ko tàccu baaxoon lool wante tamit bëri yërmande mu nekkoon ku bari woon mbooloo dafa simploon ba nga xam ni ay xaritam yi nga xam ni ñoom ñoo foowandoo ñu ci bëri xamuñ ni doomu buur la maanaam prince la kii di Victor su daan toog di waxtaan ak Jacques doomam daka daan wax naan ko ci adduna bi ba mu daj mun naa war ni yaay ñaareelu nit bu ci gën ji ko Jacques laj papa ji ne ko kan mooy ku njëkk ki Victor ne ko sa yaay Sylvie mu ne ko su ma demee ba am doom bu mel ni yow baax ba ñëpp di ko tudd ci àdduna bi loolu kenn rek moo ko waral muy sa yaay amoon histoire mu téye ma di ma toppatoo muñal ma su dul woon moom fu ñu toll nii doo juddu mu ni ko def lu baax rek moo am solo benn bés Victor woo doom ji Jacques toog ak moom di waxtaan ak moom ne ko dama dégg ni sa nijaay Tariq amoon na doom avant muy génn àdduna yow laa bëgg a jox mission bi nga dem seetil ma sa mag jooju mu ñibbisi si kër gi mu ni ko mi ngi juddoo si dëkk bu ñuy wax autrui dégg naa ñu ni tamit yaayam génn na àdduna nijaayam bu tudd oto la nekkal defal lépp loo mën seet ko ba gis ko nga wax ak moom pour mu ñëw ñibbisi si pale bi si même dëkk bi di Venu kii di Eric pare woon na bu yàgg formation police bi ba defoon ay mission yu bëri accomplir ko ñu yokkoon gradam ba mu dem ba nekk général ba nekkoon di def ay recherche pour xam kan moo rey papaam mu delluwaat ci dëkk yaayam bi nga xam ne mi ngi tudd yi dem yeggali foofu enquête am ci même waxtu boobu Jacques moom it comme que dafa muusoon mu tàmbalee di def enquête ci dëkk boobu le mu dem ci ay voyageur laaj leen ay information ci dëkk boobu ñoo ñu xamal ne ko dëkk bu wóoradi la ndax seen njiit yi gëmuñu dara ñoom leen rek lañ gëm muy xaalis soo ko amul kenn du la lijjanti information yooyu mu am ci dëkk boobu ndax mu amoon benn idée comme que moom dafa bëggoon dox mission te kenn du ko lijjanti mu dem ba dëkk autrui mu gis benn yalwaankat bu toog ci trottoiru tali bi di yalwaan mu ñëw ba ci moom jox ko ay millions yu bari ne ko mu jaay ko yére yu mu sol waa ji tegu ci baat mu kontaanoon lool jox ko yére yu mu sol ba boole ci yeneen yére yu tilim yi mu dencoon benn côté kii di Jacques comme que xamoon na ni dëkk bi dafa dangereux mu jël yére yooyu sol ko bu boo nekk yalwaankat mu defoon noonu tamit pour nëbbu ni prince la maanaam doomu buur ba pare kii di Jacques du jël ci magam bi rekk moo ko fi indi woon li ko fi indi bokkoon na si mu defar dëkk boobu di Autrui defar ko ba citoyen yi fa dëkk mën a nekk ci jàmm ak salaam wante avant muy def loolu lépp il faut que mu jël temps xool dëkk bi ni muy doxee balaa ñuy xuus ci histoire Jacques ak Eric dama leen di nettali histoire Bella nga xam ni nit ku important la ci istoire bi léegi nag mun nañ commencer ci même dëkk bi ci benn kër bu sorewul ak Jacques fi mu nekk di yalwaan mu amoon benn soxna bu tudd Bella soxna soo soosu amoon jikko ju baax mu amoon yar ak teggin nekkoon ku baax wante tamit bëri yërmande ki nga xam ni mooy yaayam moom dafa amoon cancer génn àdduna Bella ak baayam ñu koy jooyta noppeeguñu papaam ñu koy woowee monsieur Adibo Bella rek la amoon si doom loolu taxoon mu fonkoon ko ba pare bëggoon ko lool kii di monsieur Adibo takkaat beneen jabar bu ñuy woowee Stella Stella moomu nekkoon nit ku soxor lool ba nga xamee ni ñëw na ci kër gi ba tàmbalee di sëy ak monsieur Adebo mu gis Bella tàmbalee di fiir si moom ndax dafa rafetoon lool ba waa mbedd mi di wax Stella naan ko yow dal nga ci ndaxte Bella borom baax la loolu ñu ko daan wax si mbedd mi naqari woon ko lool si noonu mu tàmbalee di yàq àddunaam di dem si même nit yi ko daan tagg di fa yàq deram naan leen kooku lim leen di woon si mbedd ak li muy jëf ci kër gi bokkul naan leen nit gënu ko bon ci kaw suuf ba nit ñi tàmbalee di gëm ay waxam ci même dëkk bi ki nga xam ni mooy Eric mi ngi doon avancer ci enquête am di def ay business ak ay bandi ba ñu proposé Eric pour mu ñëw liggéey ak ñoom kii di Eric d'accord ba pare kontaanoon lool ci bandi yi nuñ ko jëlee boole ko ci seen groupe mu nekk ci seen biir nekk espion yeggali waale am ci beneen côté ci dëkk bi Jacques tàmbalee di manqué li muy dundee mu toog di rëccu lu tax mu jox xaalisam bi yëpp yalwaankat bi ba deseetul dara mu naan si xelam munoon naa téye sax benn cinquante mille pour lu muy dundee ay guddi yooyu monsieur Adebo liggéey ba wàcci ñëw si néegu doom ji Bella tàmbalee di ko xas naan ko sa tante wax na ma li nga def tey nee na ma nangoo ko jàppale si liggéeyu kër gi ba pare nee na nangoo def dara nee na da ngay toog téye sa téléphone bañ a def dara kii di Bella su demee bay tontu pour wax dëgg gi papa ji yuuxu ko ba pare nangu téléphone bi mu yore woon ba pare ne ko soo demee ba changé ma joxaat la téléphone bi kii di Bella su daan teel a yeewu defar kër gi ba mu set raxas ndab yi tante ji da ko daan wax dafa taayal moo tax muy teel a yeewu di liggéey kër gi sa morom yëpp yeewu nañ bu yàgg tantaam jooju kenn xamul woon lu mu bëgg si même dëkk bi si beneen côté mu amoon ay nit yu luus di def benn réunion si biir réunion bi mu am ku laaj nit yu toogoon foofu benn question ne leen fan ngeen toll si doomu prince Taric bi gis ngeen ko wala am ku ko tontu ne ko am na sama nit yu xarañ yu ma jox mission boobu dinañ def lépp lu ñu mën gis ko wàccee ko nekk si leneen mu am beneen waay bu jóg ne escorpion mu ni ko instant yi doomu taarik bi du problème ndax yaakaaruma mu xam dara si sunu secret problème bi kay mooy waa ju ñuy woowee Jacques yi samay employé yi ma doon liggéeyal ñoom ñëpp dem nañ ndax waajooju weer a ngi nii ñuy def ay recherche mënuñoo xam kanamam kii di Jacques di doomu Victor sak fajar ba timis day nekk taalibe li ko dalee timis ba ay xaaji guddi day solu ba rafet defaraat bopp bi dem lijjanti situation wu nit ñu dëkkoon foofu ba pare di leen wax ni moom Jacky la tudd benn bés Bella toogoon ci kuuru kër gi di xalaat yaayam li mu ko daan wax daan ko wax naan ko nit soo bëggee sa avenir baax da ngay muñ di jéggale da ko daan wax tamit naan ko dëgg rek mooy mujj nu mu toogee noonu di xalaat ronga ñu tàmbalee di génn Stella fekk ko fa di ko ree di xaqataay ci kaw mu ñëw ba ci moom ne ko lan ngay def fii yow kase kii di Bella toog fu mu toog waxul dara tànta ji ne ko foog nga ni bés dina ñëw sa papa xam ni yaa nekk si dëgg kii di Stella di ree ci kaw a kaw mu ni ko baax amul benn njëriñ nit danga war a muus di manipuler ku la neex mu ni ko xanaa gisoon ni may manipuler sa baay sa papa yàgg na ak yow xam sa jiko te pourtant lépp lu ma ko wax si yow man lay gëm instant yi jaxasee naa la ak moom ba bëggatul si yow dara mu ni ko sa baay daf ma bëgg ba dof lépp loo ko mënti wax du ko mës a gëm kii fekk ko ba fu mu toog mu joxoñ ko loxoom bëgg nga yem sa place soo ko defulee rek di nga am ay problème yu rëy a rëy mu tourné dem yoonam benn bés kii di Bella sonoon lool ci kër gi mënul woon toog benn place ndax yuuxu tànta ji mu génn kër ga dem doxantu ji pour changer air ni muy doxee noonu benn yalwaankat ñëw ba ci moom di yalwaan mu xool ko yërëmoon ko lool mu jàpp loxoom indi ko ba fi mu dëkk ba nga xamee ni yegsi nañ ci biir kër gi mu ni waa ji mu xaar ko foofu ba mu duggee ci biir kër gi tànta ji gis ko ñëw ci moom di ko harceler tàmbalee di ko yuuxu mu laaj ko ne ko fan nga demoon Bella wàccee bëti ci suuf ne ko demoon doxantu ji xel kanam gi ñëw di ko jege si di ko xool jéppi woon ko lool tànta ji yuuxu ko wax ko ne ko ba nga yeewoog léegi defoo fi dara nga dem sa yoon bàyyi maak liggéeyu kër gi mu ni ko da nga foog ne xawma li ngay def si mbedd mi ah léegi lii moo la dese da ngay wër si mbedd mi di yàq sama der kii di Bella jooyul woon wante xol bi mu ngi naqari woon lool kii di Bella sonnoon ci wax ji lool ba mënatu ko muñ mu wax tànta ji ne ko Stella xam nga lu ma lay xamal wante tamit sonn naa ci sos gi may sosal mu ni ko man duma sa jaam Stella di reetaan ne ko abon ah kon dangaa sonn nii léegi nag lan ngay def danga may dem boole ji sa papa mu ni ko ragaluma loolu demal nga wax ko ko ñu xool ñun ñaar kan lay gëm kii di Stella tourné dem yoonam kii di Bella kanam gi triste mu meroon lool te xamul woon kan lay gis pour boole ko tante ji Bella dugg ci waañ wi tibb boolu ceeb ba mu fees dell yóbbul ko yalwaankat bi jox ko ko waa ji toog ci buntu kër gi lekkul woon dara waa jooju noonu nekkoon Jacques ba nga xamee ni Jacques lekkoon na ba suur Bella indil ko kaasu jus mu naan ba màndi mu pare di ko sant bu baax a baax kii di Jacques ba doon sant Bella mi ngi doon gis ci kanam gi ragal ak nit ki nga xam ni dundul jàmm ci këram soxna si kanam gaa ngi triste woon lool ba pare mu doon lox Jacques génnee benn kaye ne ko soxna si est-ce que mun naa xam sa tur Bella wax ko turam Jacques bind ko ci kaye bi dem yoonam bépp nit bi nga xam ni Jacques bind na la ci kaye bi soo daan toog ay ñetti fan yooyu mu ñëw seetsi la jàppale la régler say situation kii di Bella lu tax mu tiitoon di lox mi ngi doon xalaat tey su papa ji ñëwee tante ji sosal ko papa ji ñëw dalaat ci kawam loolu taxoon mu tiit di lox parfois da daan toog si néegam di ñaan naan tante ji yàlla bum ko sosal tey si baay ji benn bés ay 17 yooyu kii di Stella génn kër ga muy dox ba tasanteeg Jacques mu sol ay yére yu xottee ko yu tilim lool toog benn place di añ Stella tulli palaat bi mu yoroon ne ko jugal fi waay si yoon wi nga toog ba pare dem dugg si benn 4 x bu rafet ci biir 4 x bi mu amoon benn waay bu ko laaj ne ko Lucie lan moo tax ma lay woo ba sonn duma la jot est-ce que xam nga ne li gën a ndaw li may def nii faat naa si nit ba tàyyi Stella tontu ko ne ko Jean xolal bul ma sonal dama jàppoon waa ji ne ko wax naa la ba tàyyi nga bàyyi di jaar si sama tur mu ne ko santal bu baax ba nga nekkee sama raq su du woon loolu fi ñu toll nii faatu nga bu yàgg ne ko fan nga toll si mission bi Stella ne ko instant yi monsieur Montero dafa ma bëgg ba dof sama waaw rek lay wuyoo wante balaa ma koy signeloo loolu il faut que ma régler benn kaa ca kër ga may ma tuuti temps rek dina ko signé Jean ne ko ok baax na mu ne ko beneen yoon suñ gisantee même suñ toogee man ak yow kase dama bëgg nga may woowee escorpion kii di Stella faalewu ko mu tijji buntu oto bi dem yoonam boobu kii di Jacques fekk mi ngi doon déglu lépp liñ doon na mu arriéraat bu baax dem toog ci benn coin jaaxle woon lool di posé wu ay question ci xelam naan waaw ñii ñoom ñooy ñan at lan lañ bëgg ba nga xamee ni xëy nañ ci suba si Bella noon lool mu génnaat ci mbedd mi dem doxantu ji muy romb di nuyu dëkkandoo yi waaye kenn du ko daan faale ñenn ñi di ko jëw naan xale bi daf ma bett su génnee di nuyoo di yaru yarulu nakate moo gën a bon ñëpp ñeneen ñi di wax naan dégg naa ak sonal tantaam ji nekk ca kër ga mayu ko jàmm mayu ko salaam Bella di dox di leen dégg mu amoon lu ko metti lool kii di tànta ji di Stella da daan wër ci mbedd mi di yàq deram naan leen xale bii dafa réew taayal respecté wul sax papaam ji ko jur naan leen ay nit yu bon rek lay àndal naan li ma gën a metti ci moom ay xaaju guddi lay jóg sol colin gu bon génn kër ga dem yoonam te duma ci mën dara kii di Stella dafa mënoon rôlam maanaam di manipuler nit ñi comme ni mu ko neexee su daan waxtaan ak dëkkandoo yi di yàqu deru Bella day wax ak ñoom ba lëng leen di jooy mu tourné bàyyi leen foofu ba pare di dem di reetaan dëkkandoo yi gëmoon Stella ba pare yërëm ko ba pare confiance bi ñu amoon ci Bella ñu dakkal ko ba fu mu romb ñu koy saaga benn bés ay booru 15 heures yooyu Bella génnaat di doxantu ci mbedd mi mu gisaat Jacques toog di tàllal loxo di yalwaan mu gis ko yërëmoon ko lool mu ñëw ba ci moom nuyu ko ci yar ak teggin ba pare ne ko nañ dem kër ga ma tibbal añ ba ñu yegsee ci buntu kër gi Jacques taxaw ci biti xaar ko Bella yoot nànk dugg ci waañ wi ko boolu ceeb ñëw jox butéelu jus kii di Jacques bi di dox di lekkaale kontaanoon lool muy dem di santaale ndaw si kii di Bella xolam féex ba pare mu koy tàllal loxo naan ko ba beneen yoon ba nga xamee ni tëj na bunt bi mu tourné jàkkaarloog Stella mu xool ko xaw a fas kanam gi mu ni ko ah léegi da ngay génn di jàppale yalwaankat yi da nga bëgg a wane ni nit ku baax nga pour nit ñi joxaat la confiance foog nga ni dëkkandoo yi dinañ la bëgg comme niñ la bëggee woon kii Stella di ree ci kaw woowee wante kii di Bella faalewu ko woon mi ngi taxawoon wàccee bëti ci suuf ñàngal kanam gi tante ji di yeggale di ko accuser Bella romb ko bàyyi ko foofu dem ci néegam bés bu sàkk muy dund lu mett ci tante ji mu koy jaxasee papaam ba pare baay ji di dal ci kawam chaque jour kii di Stella def na lépp lu mu mën pour toroxal Bella wante moom mi ngi toogoon muñ ba pare découragé wul loolu yokku meeru tànta ji ba mu dem di fay benn nitam xaalis gu bëree bëri pour mu wër gën a yàq deru Bella ci même dëkk bi ay midi yooyu ci benn entreprise bu mag bu porte nekk ci kaw tali bi ci digg dëkk bi immeuble boobu monsieur Montero di papay Bella moomoon ko mu nekkoon ci biroom di waxtaan ak benn avoca avoca bi ne ko sama client proposé woon na la deux cent millions pour nga jaay ko sa entreprise bi nga bañ léegi nag triplé na xaalis bi fay ci six jaay ñu entreprise bi kii di monsieur Montero bañ ba tëdd ci suuf avocat bi ne ko sama client nit ku am importance la ku bëri doole ci dëkk bi soo ko ko jaayul mën na la indil ay problème nangu entreprise bi si say loxo par force te doo ci mën dara kon tee ngaa jël proposition bi looloo gën ci yow balaa leneen di la ci fekk muy gën a metti ci yow ki di monsieur Montero xool avocat bi ne ko li ngeen ma proposé nii soo leen ko multiplier woon par dix sax duma ko jaay dama bëgg nga dem ba ci ki yoon yónni nga ni ko entreprise bi jaayul te soo fi ñëwaatee beneen yoon yow sa client yëpp dinaa leen plainte ki di monsieur état bi ne ko s'il vous soo génnee nga tëjal ma sama buntu ñu teg si ay ñetti fan yooyu am ñu dugg si biir entreprise bi taal ko kii di monsieur Montero toog si benn coin jaaxle woon lool si noonu am ku ko woo téléphone ne ko dama dégg ñu ni sa entreprise bi da doon lakk naan ko massa coono yéene wuñ la woon lii ba pare ne ko man maay ki la doon proposé entreprise bi bërkaati démb heure boo ko bëggee jaay rek nga woo ma si numéro bi mu coupé téléphone bi kii lool di yeggale xalaatam ca kër ga kii di Stella Scorpion woo ko ne ko yónnee naa ay gaañu taal entreprise am bi heure bii monsieur Moneyboard jaxasoo na fii nga ko mënee manipuler ba mu signé papier yi ba nga xamee ni coupé na téléphone bi kii di Stella di reetaan ca kaw a kaw naan Bella tey laa koy sosal ba ñu génnee ko ci kër gi enfin mu mën a am jàmb ay minu yooyu ba nga xamee ni monsieur Montero yegsi na ci kër gi ànd ak xadar meroon lool mu fekk Stella ci buntu kër ga naaj mu nekkoon di jooy jooy yu metti jëkkër ji ñëw ba ci moom yëkkati ko ne ko lan moo xew kan moo la def lii Stella ne ko Bella dafa génnoon guddee woon a ñibbisi mu ñëw ba ci moom jàpp loxoom di ko laaj fan la nekkoon ba heure bii mu bumax ko tàmbalee di ko dóor naan ma bul ma ko laajati mu dugg ci waañ wa jël benn paaka mu jàmma paaka bi ci loxo ne ma soo ma laajatee question yu mel noonu dama lay rey kii di monsieur Montero meram gënoon a yokk ba mënatula téye boppam mu yéeg ci escalier yi di dem ci néegu doom ji Stella toog ci suuf di reetaan naan Bella moom éliminé naa ko kooku du nekkati sama problème léegi nag monsieur Adibo moo ci des dinaa ko baab ba mu jaay entreprise am bi xaalis boobu ma dóor ko dem sama yoon kii di monsieur Adibo dugg ci néegu Bella te mu fekk ko muy nelaw mu ñëw jàpp tànk yi diri ko tàmbalee di ko dóor dóor yu méttee métti Bella naan ko papa moo xew lu tax nga may def lii kii di monsieur Adibo faalewu ko jël benn fiilu chargeur bu nekkoon foofu dóor ko ko si ba muy bëgg a dee Bella def lépp lu mu mën ba nangu fiil bi papa ji eggali di ko dóor ay kurpeñ mu dóor ko ba yàq kanam gi damm tamit loxoom kii di Bella kanam gi suulu neewi woon lool kër gi di riir foo toll di dégg ay yuuxoom Bella nekkoon di ko jégalu wante li jëntiwu ko woon papa ji di ko dóor ci lu ëpp si xaaju waxtu ba nga xamee ni dóor na ko ba pare mu dem si jabar ji ko neexal naan ko xawma kan wante Bella du la jegeeti kii di Bella moom mi ngi woon ci néegam tëdd di jéem a nelaw wante munu ko woon ndax yaram gi yépp a ngi tërgan di metti mu nekkoon di jooy di xalaat yaayam naan ci xelam yaay lan moo tax nga dem bàyyi ma mënoon nga ma yóbbu rek xolal tey bàyyi lu ma def te defuma waxuma naan yaay danga ma daan wax naan ma nit soo bëggee am mujjanteel bu rafet dangay baax muñ di jégale ma nekk di doxalee noonu boobu ba wul bés bu sàkk gën a metti wala dama def lenn loo xam ni neexul yàlla kii di Bella nekkoon di jooy ba far nelaw ay 6 heures di matin Bella yeewu di dem hôpital mu taseeg tante ji di ko ree Stella ne ko wax naa la ba tàyyi sa baay bëggatu la man de su doon maa yow damay gedd génn kër gi kii di Bella kanam gi neewi woon lool mu génn kër ga dem hôpital ba nga xamee ne ay 8 yooyu jot na ma monsieur Adibo nekk ci néegam toog ci lalam di jooy naan ci xalam man démb lan moo ma dal ba ki ma gën a bëgg ci sama àdduna ma yu metti woon na ko doom ji biig ci guddi mu dem sangu ji solu yéeg ci kaw pour dem jéegalu doom ji heure boobu fekkoon mu génn dem hôpital mu génn si néeg bi tasanteeg jabar ji mu laaj ko fan la ne mu ni ko ba mu yeewoo ba léegi tegagu ko bët Stella ne ko lan nga koy doyee monsieur Adibo tontu ko ne ko démb dama jóge woon entreprise ba ñu laq ko ma ñëwoon mer lool ma gis lim la def ma dóor ko dóor yu metti yu ëpp loolu taxoon ma bëggoon koo jégalu Stella ne ko bul ko ay loxoom ndax bu boobaa day gën a am fit lu ko neex mun na ma koo def kii di monsieur Montero kanam gi triste woon lool mu taxaw benn place di xalaat mu wax Stella ne ko wax nga dëgg kon bàyyi ma bàyyi ko noonu ba pare génn kër gi dem xëyi ji ci même jour bi ay 19 yooyu monsieur Montero wàcci wante ñibbiwul woon kër ga mu toog ci benn trottoir oto yi di ko romb càmmoñ ak ndeyjoor kanam gi triste xolam tàng mu amoon lu ko metti lool ndax li mu def doomam ji si noonu Jacques ñëw toog ci wetam solu woon ba rafet xeeñ parfum bu neex ne ko waaw ku baax sànq ba léegi maa ngi lay gis ngay waxtu rek ba jàmb kii di monsieur Montero ne ko jaaxle rek mu expliquer Jacques lépp li xew ci entreprise ba waxaale ko lépp li xew ca këram Jacques toog xalaat bu baax si sa entreprise bi ñoo ñooñu noonu di la sonal ba koo jënd ñoom ñoo ko taal bëgg laa teg pression pour nga gaawantu jaay leen ko kii di monsieur Montero toog absenté xalaat bu baax jékki-jékki ne Jacques ne ko xam nga yow wax nga dëgg ndaxte entreprise bi ba mu laqee si suba si même waa ji moo ma woowaat jox ma numéroom ne su ma ko bëggee jaay ma woo ko mu ni ko non loolu xalaatuma ko woon sax mu ne xaaral su ma demee dinaa leen porter plainte Jacques ne ko bul def loolu la gën a metti boo moytul sax ñu dem laq sa kër te instant yi amoo benn preuve buy wane ni ñoom ñoo laq sa entreprise kon nag dama bëgg nga dalta ta teey kii di monsieur Montero noppi def tekk Jacques ne ko léegi xam nga nan la ñuy def da ngay denc këyitu entreprise bi bu baax kenn du ko gis ci ñoom suñ la woowee di la wax nga jaay leen ko nga wax leen li ma lay bëgg a wax nii kii di Jacques déego di ko wax ay baat ba nga xamee ni wax na ko lim koy wax ba téléphone am ba pare ne ko bés ni ki tey def naa la xarit kii di monsieur Montero di ko sant di dem kii di Jacques di ko xool muy dem mu kontaan noonu lool si jàppale bi mu ko jàppale te xamul ni kii mooy bàyyu ndaw si koy tibbal añ di Bella ba nga xamee ni teg nañ si ay ñaari weer yooyu nga xam ni Bella tane woon na tante ji xalaat benn solution mu génn kër ga dem seeti ji taalibe bi Bella di doon tibbal añ presque chaque jour muy dox ci mbedd mi jël tempsam seet ko ba gis ko mu ñëw ba ci moom ne ko dama laa soxla woon kii di Jacques mu gis ndaw si xàmmee ko ba pare xaw a tiit Jacques di wax ci xelam naan kii mooy femme bi duggoon ci kat-kat bu ñuul bi di wax ay waxu rey naan femme bi ku sadik la wante tamit ku dangereux la xaaral ma def nànk ci moom si noonu rek Stella yuuxu ko ne ko xanaa du yow laay waxal Jacques bu baax nekkoon di xalaat rek Stella ne ko dama bëgg teg ak yow benn dil boobu soo ko matalee sa dundin dina changé doo nekkati si mbedd mi di yalwaan dinaa la jox xaalis ba nga doyal Jacques ne ko waxal lan mooy dil bi mu ni ko dama bëggoon nga ñëw fi ma dëkk nga ñaan si jabar nga ñëw ma may la Bella Jacques ne ko kan mooy Bella Stella ne ko kon waxula turam mu ni ko Bella mooy ki lay tibbal ceeb chaque quinze heures mu expliqué ko fu mu dëkk kii di Jacques absenté di wax si xelam naan ah maa ngi doog a comprendre ko ma seeti ji keneen Jacques né ko d'accord na kañ laa fay ñëw Stella jox ko benn téléphone ne ko bés bi su jotee dinaa la woo kii di Stella tourné dem yoonam di dem di ree ci kaw a kaw